internet yu seen série tv maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di rafetlu bu baax a baax li ngeen di àndee saa su ak sunu ay programme tey seen rubrique décortique série Aïta épisode huit la leen àndil ñu door ko ak séquence bu njëkk bi ñu gis ne ki nga xam ni moo di tàkko euh, moom nag comprendre na bu baax a baax que ni Omar pareegul sax ngir delloo ko rek part yi nga xam ni euh, moom lay réclamer ci entreprise bi mu mel ni kon moom mi nga xam ni moo di tàkko def na erreur xam na ni itam def na erreur euh, ndax yaakaar naa xaalis boo koy joxe somme bu ni toll bu fekkee am na benn accord bu ci am rek war ngeen koo mën a signer ndax wax rek euh, ak kàddu euh, bu fekkee koo xam ni euh, fonkul kàddoom yaakaar naa ni rek di nga ci am problème te ku ne xam na mbirum xaalis itam seytaane la te fépp fu mu dëgg rek mën na faa indi ay jafe-jafe ñu ci ki nga xam ni moo di alaaji moom nag affronté na tàkko di ko xamal rek bu baax a baax que ni ni muy doxalee du yoon mu mel ni moom alaaji kon courage am la jël ba tax na nag muy wax ak tàkko ni mu war a waxee ak moom waaye ki nga xam ni moo di tàkko nag neexu ko ndax Sénégal moom euh, ku ne xam na ni euh, bëgguñu ku leen di wax euh, dëgg képp koo xam ne yaa ngi leen di wax dëgg rek dañu lay jàppee sa noon alors que tel n'est pas le cas ndax yaakaar naa ni ku lay raay wala nag di la jay kooku moom mooy sa noon ndax la bëgg dëgg boo fekkee nekk rek sa loxo taq na suuf dala ko war a wax pour nga daal di koy faxas ñu jàll ci Aïta Aïta nag moom gis nañu ni histoire bëggu ci dara ba tax alaaji li mu affronté tàkko sax neeku ko neexu ko waaye alaaji moom décidé na que ni dina jël rek courage am ndax trop c'est trop te nag li ñuy wax rek lu ëpp rek tuuru ba tax na moom mënatul rek taxaw di xool li nga xam ni tàkko mi ngi koy def waaye itam situation bi nga xam ni ay tam mi ngi koy dund ci euh, kër gi ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni police dem na kërkat yi ngir enquête ci deewu Pythagore bi euh, waaye euh, ñoom police xam nañ bu baax a baax que ni ku gis kat yi ak attitude bi nga xam ni am na ko di nga xam ni rek am na lu muy nëbb mu mel ni kon moom kat yi dugg na te it nag su mayuwul dina métti trop ci moom ndax ki nga xam ni moom moo rey ki nga xam xam ni moo rey euh, Pythagore fexe na rek ba kat yi euh, ñëw ci euh, ki nga xam ni moo di Pythagore mu daal di leen di photo mu mel ni kon moom kat yi su moyuwul dina dugg ñu jàll ci Omar Omar nag moom mel na ni pareegul ngir daal di fase ki nga xam ni moo di Aïta même si ki nga xam ni moo di tàkko xam na ni loolu la bëgg moo tax mu koy bëgg a yóbbu ci yoon waaye nag moom Omar xamle na ni kilifa la te it kenn du ko dicté li nga xam ni loolu lay def mu mel ni moom mi nga xam ni moo di Omar pare nag ngir defante ak tàkko ba lu mu ci am rek mu daal di jël ñu jàll ci di yaayu tàkkoor moom nag gis nañu nii bañ gi mu bañ euh, Omar euh, nekk na loo xam ni fës la rawatina nag buggul sax dégg turam mu mel ni kon euh, bañ na ko trop ndax yaakaar naa nit boo ko bañee dem sax ba bëggatoo dégg turam kooku yaakaar naa ni rek bañ nga ko mu mel ni kon diggante yaayu tàkko ak Omar li ci nekk dëgg-dëgg xamaguñu ko ndax mënuma comprendre que ni nit takk sa doom nga bañee ko nii sans benn raison waaye ki nga xam ni nag moo di yaayam itam mu ngi koy xamal bu baax a baax que ni moom tàkko dafa war a liggéey ndax weesu nañ jamono joo xam ni euh, jigéen day euh, bëgg rek di euh, sës si góor wékk léppam góor ndax ku ne xam na ni ku ne dangaa war a sàmm sa ëllëg tey nag war ngaa xool bu baax a baax noo mën a rek indépendante we waaye nag topp sa jëkkër rek wékk ko lépp ndax àdduna ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd la ñu jàll ci kat yi nag moom gannaaw bi police ñëwee këram dafa ñëw rek kër tàkkoo ngir daal di koy affronté daal di koy rek xuloo ak moom waaye ku ne xam na kër gi ndax tàkko moom moo sàkku lu ni mel waaye ki nga xam ni moo di alaaji nag moom affronté na ko waaye Aïda comme ni mu koy defee saa su rek euh, ñëw na ngir euh, rafetal euh, ba tax na nag muy waxtaan ak alaaji ngir mu nekk nit koo xam ni du fayante ko parce que fayante ko li muy yàq rek mu moo ëpp li muy defar mu mel ni kon moom mi nga xam ni moo di aytan ni mu mel rek noonu la bëgg ñëpp daal di koy mel donte nag du lu yomb ñu jeexal ak tàkko tàkko nag moom mi ngi wër ay preuve mais nag on dirait Omar jël na ay devant wam ba tax moom mi nga xam ni moo di tàkkoo yaakaar naa li mu bëgg rek du ko mën a am te su moyuwul nag euh, procès bi nga xam ni jël na ko ak Omar moom moo koy daal di euh, perte kon mbokk internet yi fii la ñuy yem ci épisode huit bu série Aïta ñu jox leen dig daje si beneen épisode waaye laataa boobu woy leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàtte ba si cloche notification bi pour ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel jërë ngeen